Sénégal bëri na ñuy jàmbat dund gu cher gi ci njeexitalu atub 2022 nag nguuru Sénégal jëloon na ay mesures ngir wàññi dund gu cher gi waaye nag li ñu mu di njëg yi cher na ba tey lu koy firndeel mu di facture courant yi ñuy jooytu fan yile ay kuréel di mbootaayu way jëfandikoo yi woote nañu sax ay daxuk ñaxtu ngir naqarlu luñ mel waaye nag sénégalais yi wiisuwuñu leen dafa mel ni nag dañ leen mere ndax jàpp nañ ne kenn déggu leen ci dund gu cher gi mu mel ni sax moo waral ñu taxawal beneen kuréel bu bees gi ñuy dippee Ascosen FC. association yiy défendre consommateurs yi surtout si période bii nii dañ leen déggatul c'est ça la réalité dégg ñu leen fenn xeexaluñu askan bi ñu ngi si ay yeneen schéma ñu ngi si ay yeneen organisation si yoo xam ne xëy na teg te te actuellement nit ñi sonn nañu. njiitu seen FC nag tuddul kenn waaye nag jàpp na ne yenn ci association yi daal dañ leen di corrompre tax kon kenn déggatu leen ci dund gu cher. boo ñu nekkee euh, kuréel boo xam ne day xeexal askan bi ngay dem ba yow nga bokk ci ay yeneen kuréel yoo xam ne. ña kuréel yoo xam ne da leen war a xeex yow nga dem bokk si kuréel yooyu ah bu boobaa daal day xaw day xaw a doy waar. ngir dëkkal yaakaaru sénégalais yi nag ASCOSEN FC nee na dina dem seeti ku ne ngir fexe ba ñoom ñëpp boot ginnaawam ñu xeex def pression si nguur gi. ba ñu am la ñu bëgg ko ñu sax boycotté yenn produits yi.